nëbb xam nañ ni di est politique dans ce pays en nga di nga réew mi moom. nga ñun ñun ñun ñun. non parce que des fois dama koy suivre. Mhm. Euh, parce que man j'ai son numéro ndé la nek na ko xamné euh dama koy euh, yàgg na ko inviter c'est une personne bo xamné xamna ko en fait. Mhm. mais damay gis à chaque fois statut la da fay politiquer xale comme pas possible. am na ay xale yoo xam ne kii Ousmane Sonko la ko tuddee kii Ousmane Tanor Dieng kii Macky Sall euh, ku tekki si dëkk bi dara rek Ndella bu après man loolu tikkee na ma ma ne man Ndella la qu'est-ce qui se passe avec Ndella lu euh, lan la teg si dëkk bi ba war a mun a am pouponnière. Kaana Baas rapport da doon wax boo tekkee nekk doomi ñëpp euh, di tuddeewul njàbbite de tuddeewul daaw de jigal de maanaam ku mu tuddee ku ne yaakaar na ne lenn war na koo am si yow. xamna ni Moustapha bu nekké ni vidéo bobu euh, yemb na certes nak ñoo ngi jéggalu parfois ñen ñi dina leen heurté wala dina leen metti mais heurté pour que ñu xamné ka dingal li ni ndeela mi mo nek juste la partie visible de l'iceberg di nga mhm. daaw da ce qui se passe dans nos maisons mo gëna terrible da ngay gis ko xamné da fay préférer teud ci kaw jël ay domam la la leen ci suuf ñu teud ci room bi te pour man xalé bobu mo la gëna soxla confort xale bobu mo la gën solo confort mais da ngay gis ne carrément nga aju si kaw si lal yow sa jëkkër sa doom yi nga war nga nga nga tégal leen dëstan ñun ci suuf ak sedd bi c'est des choses yo xamné il faut aussi que non que l'on se dise nos vérités et on se regarde euh, si suñu ay blonde lay waxante suñu ay vérité nous on est vrai vraiment une société boo xam ne baalal cadre ñu si kàddu gi ay xale yu ndaw leen mais euh, la responsabilité nous engage tous nous tous mu nekk gouvernement yi mu nekk politique yi mu nekk ñun ñi nga euh, c'est nous sommes des sénégalais lambda parce que au delà de journalistes yu ñu doon ñu toog si li nga ne nekk si plateau bi ñun ak nous ñoo bokk li nga xam ne moom dund fii si Sénégal des fois on aime bien porter des masques parce que suñu liggéey yi moo ñu koy laaj jox mais métti bi ngeen di dund loolu il faut que ñu dem jëlee parce que suñu mm-hmm. société yi on a une société bo xamné ne daaw la dañ koo war a xam bu baax carrément li c'est bien c'est bien de faire de la politique c'est bien d'aspirer au développement mais le plus important mo nek l'humain c'est l'humain bobu mom la sénégalais respecté wul euh, da Moustapha si l'élément euh, est en place ñu dem xale bu feebar sa biir kër nga wàcc ci suuf sa appartement doom bi kaw nga di nelaw tranquille ak di commandé ak di commandé lu ay yaasa ginaar moo ngi nii gis ngeen ko te xale bi mel woon nii dem ba mi ngi feebar moo ngi nii Ndella Madior Diouf moo ko def ci pouponnière am bi si Sacré-Cœur 3 mi ngi nii damay téye en pour après bu ñun bu baax ak ay ay wax ay microbe la ak ngi ibbi sa pépinière sa biir kër ñi ñu wóor la dénk la sa ay doom ñun ñi bu woon ñun fii du jax du baax xale yaa ngi nii saay soo am saay sooy amee gan kay defar pépinière bi wala nga nëbb xale yi yi nga xamante ne dañoo seen yaram yi daa furi dañoo jeex lekkuñu wala ñu feebar si sa biir néeg nga leen di nëbb xale bu feebar sa biir kër nga wàcc ci suuf sa appartement doom bàyyi xale bi si kaw nga tëdd di nelaw tranquille ak di commandé ak di commandé lu ay yaasa ginaar moo ngi nii gis ngeen ko te xale bi melu woon nii dem ba tey mi ngi feebar moo ngi nii Ndella Madior Diouf moo ko def ci pouponnière am bi si Sacré-Cœur 3 mi ngi nii damay tee en pour après bu deewee mun naa ñun ñoo ko teewul bu baax ak ay ay sànq li wax ay microbe laak yooyu moo ngi nii ibbi sa popoñe sa biir kër ñi ñu wóor la dénk la sa ay doom ñun ñi bu woon ñun fii du jax du baax xale yaa ngi nii saay soo am saay sooy amee gan kay defar pouponnière bi wala nga nëbb xale yi yi nga xamante ne dañoo seen yaram yi daa furi dañoo jeex lekkuñu wala ñu feebar si sa biir néeg nga leen di nëbb. De retour euh, sur euh, le plateau, voilà des, des images vraiment choquantes. Euh, ce petit ange bi nga ramener du di aussi Touri Mohamed Nous, sommes koy à yàlla rek mu à continuer nawam bi à si c'est c'est c'est des choses yoo xam pour moi, si l'eau leen ci focus loolu leen war focus.

Euh, mu doon li nga xam ne moo di ab euh, pouponnière waaye pouponnière bi euh, dañu ko jaayoon comme loo xam ne pouponnière yu VIP la média yu bëri doon ko doon ko doon wane beneen bi mooy bu ñu sukkandiku si li nga xam ne moo di doomu Ndella Madior moom lam ca waxoon moo di Euh, xalé bu nek fassiyene nañ euh, dépensé nañ si lu tollu ci mom 400000 benen bi moy dañoo fassiyene won té téye ba ñu am dix ans lool euh, manam dix ans lool moy li nga xamné mom lañu waye bu si li xew modi ndéla major ab taskatu xibaar boo xam ne dafa jógee si li nga xam ne moo di wàllum taskatu xibaar wala wàllum média ak yooyu noonu. Euh, euh, maanaam bon ñëw maanaam euh, maanaam patron de presse boo xam ne mën nañu wax ne dafa mujj si li nga xam ne moo di wàllum pouponnière ak yooyu. ñi nga xam ne nag ñoo joxe information yi moo di ab benn ndaw soo xam ne nee na moom licence 3 la am en journalisme communication def na 6 mois ci stage si ay. rajo ya ca mel waaye nag bu mu ca xoolee ay mbiram mënu koo lijjanti si wàllum koom-koom moom ak sëram si la leen Ndella Madior proposé kenn ku nekk soixante mille ngir ñu mën a gérer li nga xam ne moo di euh, moo di pouponnière boobu waaye nag li nga xam ne moom lañ ci wax moo di bi ñu duggee si euh, pouponnière bi jàppal ne euh, ñoom ñetti nunu ñoo fa nekkoon ak benn soxna soo xam ne wérul woon waaye mën na wax ne si pouponnière bi mën nañu wax ne si trois parties la partie boo xam ne foofa dem am na lu toll si quarante xale te xale yooyu ñoo ngi âgé lu toll si diggante at ak at boo xam ne teg na juróom benn weer waaye leneen li nga xam ne aussi moom la ñu ca mën wax moo di xale yi boo leen xoolee dañoo on dirait que ñu amee quasio xoor mooy mal malnutrition wala ñoo xam ne dañoo affamé euh, ñoom nag ginnaaw gi nga xam ne loolu yëpp xew na te ñoom ñoo ñuy ñooy jàppale xale yi li leen gën a metti moo di it nag Ndella Madior da leen yoral xaalis goo xam ne moom it fayu leen ndax la ñoom looloo tax ñu def li nga xam ne moo di euh, vidéo bi beneen bi mooy aussi dañoo gis ne foofu amul hygiène bu baax beneen bi aussi mooy xale yi ñaari lekk la ñuy def bu ñu jëlee lee leneen li mooy euh, du ñu lekk heure waaye nag leneen li nga xam ne moo ci gën a doy waar euh, ay bool lañ leen di defar vermicelle ak yu mel noonu lañ leen di jox bi loolu yëpp euh, amee ndee Ndella Madior moom it jox nañ ko kàddu yëkkati na ay kàddu nee na bu ñu xoolee li nekk di xew am na certes ñoo xam ne ñàkk nañ seen i bakken mënul joxe identité tur yi euh, mooy comme li nga xam ne xale yi moom la ñu wax mais beneen bi nee ñooñu dañ ko infiltrer dugg ci biir pépinière bi beneen bi mooy lam leen mën a tuddee nee na ñooñu ay pro Sonko lañ comme réew mi xam naa ne dinañ ci gën a yaatal après waaye nag moom nee na lii yëpp boo xoolee li tax mu xew moo di jamono gi dafa wax ne taxawaay bi nga xam ne ko ngir ànd ak Amadou Ba ci élection yi jàppal ne loolu moo tax nit yi xale yooyu di ko buntu xatal mais nag lam ca wax moo di na mu war a ngi leen di ba mu information yi nga lañ ci joxe li xale yi wax ak li nga xam ne wae nak moom la wax après askan wi ñoom it ñooy joxe si li nga xam ne mooy seen xalaat ñun ñit waxi nopp mais juste rek dama leen doon defalaat li nga xam ne moo di genèse bi mbir mi fan la jógee ba fi nga xam ne foofu la yeeg si waaye daal lañ ca mënti wax moo di fee ca poppandeeru euh, Ndella Madior Diouf d'après des témoignages yañ fa am wala vidéo ya nga xam ne lañ fa gis lañ doon gis ay yenn dëkk yu ne Somali wala guerre nit yu xiif wala sonn ñu mënoo leen tuddee xor di wala malnutrition wala ñoo xam ne dañu affamé et effectivement loolu lañu nekk di gis fi nga xam ne moo di pouponnière Ndella Madior Diouf et niñ ko waxee ne l'heure est grave et nag lii il est temps ñu ci war a taxaw wax ca il est temps ñu si war a taxaw wax ci euh, da merci pour euh, éclairage yi nga xam ne

boobu budget yan orientation par rapport à li nga xamné mo ñël mim les est aussi euh, au Sénégal naka euh, des questions légitimes pour euh, la population si lolu focus li nga xamné business autour de la petite enfance au Sénégal mu nekk daara mu nek ci euh, pouponnières yi mu nek li nga xamné mo nek ci crèche mu nek mbir bo xamné pour man buñu ñu moytuwut euh, euh, dina indi ay jéeya yu doy war ben bombe à retardement au Sénégal mais j'ai comme l'impression que la population politique moo intéressée, intéressé fo intéressée. intéressé ah, voilà mais tout ce qui tourne autour de l'enfance ñun dañ koy jël rek

Euh, Ndella Madior ci boppam ñu traduire que sa justice bu nekkee ne xale yi ni mu leen waroon toppatoo toppatoo ñu leen beneen bi aussi mooy amul ñuy chercher de midi à 14 heures parfois nga dégg xale yi ne la Sénégal du réew et liy gën a firndeel ni Sénégal du réew wala parfois ndaxte le minimum wala li gën a li nga xam ne dafa sacré moo di xale au nom de quoi si yan motif wala si lan si lan nañ ma wax si yan base lañ war a mën a jël ndeela Madior moom moomee ñu autorisé ko mu am li nga xam ne moo di pouponnière et boobu tey yaakaar naa ne ñi nekk ci en enfance ak yooyu yaakaar naa ne aussi seen liggéey bi nga xam ne moom la ñu war a nekk wala ministère yi war nañ di wàcc waat sur le terrain di xool xale yooyee ndax ñoo ngi si bonne condition ñëpp xam nañ ne parfois ñu wan ñu ay vidéo mais lan la ñuy wan ñu wan xale yi nga xam ne dañoo sonn duñu wan xale yi nga xam ne dañoo xiif ñu wan xale yi condition yi nga xam ne moom moo nekk foofu la hygiène bi beneen bi mooy euh, si moom la ñuy wax xam nga Ndella Madior moo ngi moo ngi wax euh, biñ ko laajee nee na xale ay xale pro Sonko lañu waaw ndax réew mi moom képp koo xam ne dañ laa waxal ne lii li nga def jaarul yoon ñu ne la kooku pro Sonko la Ndella Madior moom mi nga xam ne jamono jii l'heure e grave te lii buñ ko toppee si yoon mën nañ koo daan wut na appartenance am ba pare de xam nga appartenance am lan la wut dane Amadou Ba laa ànd ak si élection yi loolu dafa am leneen lu muy firndeel bu fi Macky Sall nekkoon candidat xam lan lay wax danaan Macky Sall laa àndal xam lu mooy jamono gi li nga xam ne moom la nekk moom moo nekk nii di mooy ni ma koy waxee ne kumba am ndey ak kumba amul ndey xam ne ne réew mi boo faree fenn fi dara du la si fekk moo tax mu teel a wut appartenance am ne Amadou Ba la mais xam nga ne nee la mbaa moom moomee bu weesoo moom ak doomam mun ñoo àndil dara ki nga xam ne moo di Amadou Ba tey nag Amadou Ba si boppam moom warul sax nangu Ndella Madior Diouf di wax ne moom la àndal beneen bi mooy mbir yi nag buñ ko lijj lijjantewul si li nga xam ne moo nekk fii di xew mooy continuité bi xale di wax naan Sénégal du réew ndaxte mënta weesu amul amul si base amul lenn loo xam ne war nañ mën a wane ne ab Ndella war na am li nga xam ne moo di pépinière amul beneen bi mooy euh, koo xam ne euh, peut-être tey du ñu si bëgg di wax mais bëri na si ay xale yoo xam ne da leen yor si wàllum liggéey defal ñoom formation wala ñenn ñi nga xam ne da leen war a fay amul am na des témoignages des témoignages yoo xam ne man en personne mën naa la ko àndil gis naa ñaari xale yoo xam ne dañ doon liggéey Ndella Madior Diouf ñoo xam ne xaw ma lu ñu jotee mais dañoo xëy un bon jour génne leen xale yi bi ñuy ñëw di ma fekk sama bureau fi may liggéey eh, ndaxte ñaari bureau yi Kër mbay Gueye fay rek leen séparé boobu Kaolack la ñu waroon ñibbi mais xale yi boo leen xoolee tellement que tilim nañ boobu bu ma leen joxuloon paas te li gën a doy waar mooy la ma yoroon xool naa leen xoolaal leen sama xol jeex li ñuy wax xaw ma dëgg la wala dëgg wala du dëgg mais jóge nañ si kër ñëw si kër boo leen gisee nga xam ne ñii niñ leen traité si kër gi baaxul wala niñ leen génne aussi jaar yoon koo xam ne combien ñaata ñaata xale ñoo lay wax ne damaa yoreel damaa yoreel damaa yoreel un bon jour kooku it nga xam ne teleem euh, maanaam rajoom la ca gën a dox mooy di seet ndaxte commercial kooku si business lay dox si xaalis lay dox kooku moo ngi def heure bu xëy suba ngoon te xam nañ ne ay jëfi charlatan ak yooyu la moo di ay seet ak yooyu ay maanaam serveur ngir mu am xaalis kooku xam nga ne moom si wàllum business si wàllum xaalis rek lay dox ñu xëy un bon jour mu tijjul ñu li nga xam ne moo di pouponnière beneen bi mooy les parents les parents aussi foog ñuy assumer di jël suñuy responsabilité hmm. yàlla mooy maye doom yàlla du ko jox n'importe kii nit a ngi fi am lu bëree bëri bëri bëri bëri bëri yàlla mayu ko li nga xam ne moo di doom bu la yaara tele euh, maanaam teralee nu mu la ko joxee nag mais santal yàlla nit a nga ko bëgg amu ko te nag xale bi xamuñu lan lay dooni ji ëllëg ndax la moo tax ngeen koy nangu di ko jox benn business woman juste rek pour wax la ne amul làqatu si ginnaaw Amadou Ba amul naan waa Pastef fa koy def lu mënti xew lijjanti lii ba mu doy waar bis ki ni tey bépp xale boo xam ne dafa nekk si pépinière Ndella Madior Diouf dañ ko faa war a mën a jële Ndella moom dañ ko war a yóbbu yoon wax ñu au nom de quoi lan moo tax xale yi mel nii mais nag del xool du mujj fen ndaxte teel na am appartenance am appartenance am bi tànk que moo ngi koy continuer loolu li muy wane mooy tapalekat yëpp wala caaxaankat yi nga xam ne dañoo nekk si réew mi bu ñu defulee lu dul yoon dañ naan Benno Bokk Yaakaar laa xam nañ ne bu ñu

Euh, lancé woon neen fi benn pétition jamono euh, ak way Sénélec mais pour man li mo nek lo xamné war nañ ci euh, def pétition mu nek commencer par man mini bobule pétition ko tek ma ma ma signé ko dugg ci combat bi je m'intéresse pas à la politique hein, je le dis yalla mo meuna nattu rek ma nek ci plateau yi di animer ci nga xamné mo nek des émissions mais amuma ben appartenance politique euh, les sujets yi nga xamné mo nek ces sujets sociétal rawatina mu nek euh, jigen ak li nga xamné mo nek la petite enfance c'est